Modou Diam Terry a siba wu kam ngel nene Njaay Njaay Fatick eh, doomu Pointe Sarène bi waaw waaw lu mu gis Amet Kara waaw waaw fils de Yaay Ndogo yi borom Pointe Sarène borom ñaning ana Samba Juuf maa ngi lay bëggee borom Pointe Sarène baa ngi noonu ndeysaan daa jom moo ko tax a yegg poids lourd ndeysaan ehe doomu Pointe Sarène baa ngi teen bi moo ko jël oto lañ fi tegoon muy lamb Lamine TV xale baa ngi noonu jëm ko tax a yëg poids lourd waaw waaw bi mu duggee si lamb yàggul waaye xool ko kanam gi lépp a xoosu ndax ay contact ndax bëree eh eh nee naa la lamb Njaay Njaay Fatick gars yi dañuy guddulu rek waaye ñëppay génn Pamoro na nga sa ginnaaw woo Modou Dieng déedéet la de. eh waaye bu leen fàtte ne dañu dem ci loolu ñuy jàpp suba la seen tànk yi ginnaaw suba la poids lourd yi bi waaye bu leen tamit suba Bokar Ndour ak Fatou Seye woote nañ Jaxaaw vision million deux catégorie bu leen fàtte ni woote na suba tamit ndeysaan sa Diofior 1 million 500 deux catégorie eh waaw waaw Modou Jam Téeri lay lay la la waaw waaw mooy xaal la mu taal daal di jeex waaw waaw ñu koy fu muy gën a